ñu gis ne nag série bu am solo la sànq maa ngi naan da ngeen laal touche yu bari mhm. parce que ñu ngi gis fi nga mujjee yaa ngi bëgg a def li nga xam ne moo di immigration clandestine mhm. euh, tey euh, mu nekk loo xam ne euh, phénomène boo xam ne jamono jii bëri na ci mim réew bëri na jeunes yi malgré que ñu ngi sensibiliser mais terewul tey la jeunes yi gën a mën a taxaw jël gaal gi dem ban avis ngay wax ci loolu boo xoolee quoi affaire rek gaal gi pour pourtant Moussa mës na dugg ci gaal gi. Hmm. ba ñu jàngalee ci benn affaire quoi. xam hmm. nga loolu aussi tamit ñi ngi jàngal gars yi ni ko dal dafa baax. Hmm. ci lépp looy mën a dugg il faut nga tey def nànk. parce que tey jii mën nga dugg ci loo xamante mën nga affaire rek gaal dafa doy waar. amul bànqaas quoi comme ni ko gars yi di waxee. mais bu fekkee dañoo bëgg a tekki kut koo kut. non mais tekki kut koo kut tamit. mais tekki kut koo kut nice quoi mais tamit est-ce que yaa ngi imaginer dee coûte que coûte quoi. Hmm. <laughs> wala. ah mu ngi noonu Barça wala Barça. voilà xam nga boo nekkee jeune il faut être patient quoi. nga def hmm. nànk dal xam ni kat voilà. Hmm. yàlla kat li mu voilà li mu li mu xam rek li muy maye jeexagul quoi. te ku ci sa wërsëg nekk da nga koy jël. boo nekkee ndaw il faut nga tey def nànk xam nga. ci côté nag série bi moom loolu foofu moom xam nga li ñu fay jàngale bëri na boo xoolee Moussa. jaayante na sonn jaay jaay na ay léppam dem. terewul ñëwaat na terewul ñëwaat na mais est-ce que am tardé na ci lu bëri am na ñu mhm. seen chance nekk nag. Mhm. mais chance am moom nekku ci. Mhm. moo tax ñëwaat na ñu ngi préparé waat nag beneen dem. moom day daw moom moom moom day daw ndax lim def moo rëy. yow nga nar ko ci topp man kay li ma bëgg xam mooy Charles dana mujj dem wala day toog xaar mariage. loolu nag mi ngi ñëw parce que vraiment. <laughs> <laughs> du ay teggin loolay xam nga bi mm-hmm. bind bindam. Mm-hmm. nga bëgg ko raconter te eggagul foofu. Mm-hmm. kon nañ ko bàyyi moom mu dem rek. parce que man xaw ma sax fi ma jëm nii ah. gars yi juste dañuy bind rek. waaw ñoom rek laay bind ngay da ngay mer ma giif ma giif. kon affaire bi noonu la demee quoi kon nag nañ xaarandoo ñun ñëpp rek xool fan lañ jëm. muy noonu la demee. d'accord ci biir loolu damay ñëwaat ci phénomène bi nga xam ne jamono jii aussi phénomène borom ñaari tur yi. Mhm. Eh, di homosexuel euh, dañ lañ koy wax euh, mhm. tout récemment ci 15 août bi gis nañu. ay jeunes yu ñu jàppee plage yu Yoff wala mhm. Ngor euh, côté boobu en tout jàppee leen foofu ndax li nga xam ne ñu ne dañ doon sëy ci seeni biir te ñu nekk ay jeunes di say moroom bañ tudd ci sa kenn ku siiw di Amadou Sène Petit Gallé am na ak amul l'essentiel ko turoom lañ ci daal di fësal tey ban message ngay jox jeunesse bi nga xam ne nag yéen yéen tolloo wala yéen jeunes su réew mi yéen a war a yor réew mi ëllëg tey ñu nekk ci phénomène boobu. waaw effectivement xam nga xam nga loolu moom mun xam mun naan sax du ma jaar si tour bi quoi. parce que ça mm-hmm. va pas et puis jëppal et réew kanam quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. mais lu ci waay di def wala lu ci ndaw di def rek na nga xam ni ëllëg. du añ du reer mais lu mat a sedd la quoi. xam nga da nga xam ni tamit bon actuellement dañu nekk ci monde digital. léegi bon vidéo yeeg image yeeg lépp si immortel quoi. di nga dem ba ay ba benn âge bi nii te doo ko gisaat force mm. dañ la koy génnelaat. moo tax lu ci waar yi def na ko xam. Mm. loolu nag peut-être du ma ci dugg parce que maîtriser wu ma loolu. Mm. xam nga mais daal lu ñu lu ci waay di waxal nit tamit na fekk mu nekk lu wóor. parce que tuumaal nit loolu tamit te defu ko dafa doy waar quoi. xam nga parce que dafa yéeme trop parce que ñoom ñoo ko def parce que groupe bu góor bu ñu fekk ci appartement. ak ay yenn accessoire jigéen yi tamit ñu fekk ko fa donc cest à ñu ngi ci woon. waaw waaw waaw lépp mën naa ne. Mm-hmm. loolu mën naa ne li nga waxit mën naa ne. Mm-hmm. mais nañ dal rek te xam ni affaire de euh, mare de Italie loolu di ko waxal nit te def te doonu ko dafa garaaw. Mm-hmm. ñoom mën nañ mënoon nañoo nekk seen appartement. cool dund seen dund. alors que dunduñu loolu. mënoon nañ nekk seen appartement tamit di dund loolu ba léegi man mii nii may wax ak yow nii maîtriser wu ma loolu mais maa ngi koy dégg maîtriser woo ko mais mhm. jamono yi maanaam coow loolu daf ñu mu ngi bëgg a mu ngi bëgg a euh, bool suñu nopp mhm. Sénégal tout le temps boo waxul góor jigéen yaa ngi naan lesbienne wala ngay wax vidéo vidéo ya xew ca mbuur mhm. naan euh, vidéo sextape donc mu nekk phénomène boo xam ne jeunesse su réew mi euh, bëgg nañ ko valoriser ci lu mu nekk loo xam ne dafa ñaaw ba fu ñaaw yam te mu nekk loo xam ne yéen ñi di ay porte de bras yéen a ko war a freiner. Mhm. le plus rapidement possible. waaw surtout loolu surtout loolu xam nga loolu moom vraiment man rafetlu ma ko quoi te xam nga ndaw moom mun nga nekk ndaw dund sa dund nekk sa appartement toog foo def sa li ngay def te affaire de ay affaire ay homosexuel du ci am wala affaire ay lesbienne du ci am quoi xam nga. Mhm. parce que tamit loolu jëmalewul réew kanam nañu waxante dëgg. Mhm. xam nga nit ki ci doit être conscient quoi. nga nag sa xel. xam yàlla nangu ko quoi. Mhm. comprendre nga te mënuñu mhm. dëkk tamit di tooñ yàlla chaque jour di ko mhm. baalu mu ñuy baal ñu bëgg ci tegaat yeneen tooñ yoo xamante ni voilà quoi. arrangé wul waa réew mi. comprendre nga te ñun aussi ñoo war a doon tey ëllëg magu réew mi. ñoo war a doon ay président ñoo war a doon leneen ak leneen ak leneen. kon donc bu ñu naree nekk fii ne non dañuy topp suñu bakkan wala tey nga gis parce que aar bi boo ci nekkee duma la fenn proposition yooyu da gis du benn yoon du ñaari yoon. Mhm. mais foog nga ànd ak sa dignité. Mhm. ànd ak sa crédibilité. Mhm. ànd ak sa personnalité ak sa fulla ak sa fayda. xam lan laa bàyyi suma koñ. ak suma gaale. comprendre nga. xam tamit ma ndamoo wala di ma leneen ak leneen wala tamit bu nekkee joueur nga wala bu nekkee citoyen simple nga sax. am na ñoo xam te ne yaakaar nañ ci yow. da leen sóoraale bu baax. mu ngi noonu da nga anticiper sama question sax mais fa laay duggaat. est-ce que mës nga dund li nga xam ne moom moo di promotion canapé ci aar bi nga nekk. waaw mais yow yooyu du ñàkk <laughs> yooyu du ñàkk débat xaba rek. en général ñan la yan femme lay nekk. ay femme mariée wala borom alal wala lan lay nekk. des fois sa Instagram xam benn mère message la dama bëggoon a seet ma sama appartement si kër góor gi. Hmm. xam nga mais yow yow am rek. Hmm. xam nga proposer la xaalis wala proposer la si bien sûr. ay millions. no mais non mais nag pas ay millions quoi. Hmm. ñu ma si woo ay 250 000 la ñu a wax quoi. Hmm. ñëwul foofu ma jox la transport 250. dañoo jàpp ne xale nga quoi da nga xawoon na voilà quoi donc yow yaay yow yaay kii rek yow yaay xam nga tey mun nga dem foofu mu installé ay caméra hmm. xam nga def fa loo fa warul def gaan hmm. ndegere moom xam nga. jël na la ay yoo xam doo sax doo xam. te en plus tamit quoi âge boobu ak âge bi adéquat wul quoi. baaxul ci li nga ci li nga nekk. ndax boo nekkee fii. bëgg a tëb jéggi fële. il faut nga il faut nga moytu ñaari chaise yi mhm. comprendre nga li may tamit mhm, mhm. sinon mënoo ñëw rek raatale ñaari chaise yi ba mu yegg fële mënoo nekk loo gis ci àdduna étape par étape yes step by step dal xam ni kat voilà àdduna lépp rek jarul yaakamti quoi mais mais aussi yow mais tamit nit ki moom nit ki moom vraiment pour ñu am na nag dalay neex de oui parce que am na yoo xamante ni moom da koy nangu mais parfois mère yi dañuy mool de non mais na nañoo mool mais yaa am sa fula rek. nga bañ mm. ci xama rek nga bañ ci dugg. Mm. xam nga ki nga xamante ni yàlla boole na la ak moom tamit ci muy ngor. Mm-hmm. mu bàyyi ndax yow. Mm. sonn pour yow. xam nga di nekk foo xam kenn kenn du la fa nekkal quoi. Mm-hmm. kooku da koy jox sa dignité. Mm-hmm. nga ko nga xam rek nga may ko loolu mu la may quoi. ci respect. parce que rafetul yow ñu ci yenn affaires yi nii alors que moom mi ngi sonn ci yow di jaayante pour yow. yaa ngi comprendre. kooku du nga koy sóoraale aussi. Mhm. mooy ki nga nekk mais tey est mës nga gis kenn ci ñooñu lay topp wala di la proposer xaalis pour sekk ak yow euh, proposer la maanaam kër wala oto wala proposer la loo xam ne boo amul euh, éducation de base rek da dal daal di fay da ngay daal di dem rejoindre li ñu wax yow jot nga ci am. non yooyu du ñàkk yooyu yooyu yooyu yooyu xam rek am na am na xam am na am na am na am na koo xamante ni ay kii nu mu xam nga xam ne ma ko boo ko jaayee nga jël quatre-vingt-dix pour cent dix pour cent rek laa soxla. la ci des mhm. nga xool say besoin mhm. yooyu yëpp ngi lay jéem a am. Mhm. mais xam nga rek comme xam nga kon li ma la wax léegi rek yaa am sa fulla aussi tamit. tamit mag ñi bëri nañ fi. bëgg nañ xale yi trop. xale yi il faut ñu xam seen bopp. tamit xool lii nii ñoom li def nii. mag ñi ko daan def tey fan lañ mujj quoi oui c'est important. Mm-hmm. waaw c'est important mu nekk loo xam ne am na solo parce que Sénégal boo boo dee dégg phénomène promotion canapé lu ci ëpp dañuy jàpp ne ci jigéen ñi rek la alors ko góor ñi tamit ñu koy dundu nit ñaa ngi leen di proposer leen pour seen réussite nit ñaa ngi leen di ba ci cinéma bi ñuy def sax. yaakaar naa ne am na ñu bëri ñu la ci proposé loolu pour sa réussite. Mhm, mhm, du jeex ah, mu ngi noonu waaye ci biir loolu nag l'émission tire à sa fin dama daal di laajte rek euh, ki nga xam ne nag moom moo di Charles mi nga xam ne sénégalais ñoo ko daal di bëgg amee ko lan la dund ci àddunaam walla ci viam lu ko gën a métti loo xam ne regretté na ko. waa li ma dund ci suma life lu ma gën a lu ma gën a métti way waaw loolu loolu mun naa ni mooy loolu ah. parce que tamit xam nga rek xaw na bari quoi. Hmm. oui su ma toogee fii di wax. mais lan moo la ci gën a métti xam dalay marqué. <laughs> am denc ko rek. ah déedéet <laughs> non mais baam euh, émission au oh, calme la relax. non mais baam de ko. stress lan moo la gën a métti sa àdduna. non mais ba xama rek mooy xama rek mooy bon mooy peut-être que li la njëkk a dugal c'est-à-dire comme xama comme xama comme ci yenn erreur yi quoi. mooy li nga wax sànq. voilà xama ah. dugg ci. dugg ci ay affaire yoo xamante ni nii xam nga. Mm, waroo ci woon nekk waroo ci woon a dugg. Mm. du woon sa yoon. Mm. yooyu noonu nga dugg ci léegi nag boo paree da nga regretter mais tamit am na yeneen yoo xamante ni bon bon vie privé la quoi. waaw je préfère le garder quoi vraiment. Ah, lan moo la ci gën a neex à série bi wala ci sa vie lan nga dund mu neex la. bon à travers série bi nag li ma ci gën a neex mooy sama gars yi nga xamante ni ñoo débuté ndoo. ba léegi ñooy ànd. Mm-hmm. ba léegi aussi tamit. Hmm. ñooy déggoondoo ñooy bokkandoo ci ay projet hmm. maa ngi ñaan yàlla loolu continuer quoi. Hmm. a ah, vraiment oui noonu la demee.